Mhm. Karim Wade il suit le fonctionnement du parti. waaw ah, au millimètre près li xew ci parti bi yëpp xam na ko. waaw parfois man damay damay wax sa off the record ma ne Karim Wade il n'est plus dans l'état mais il est très informé. parce que responsable bu ñu ci dégg ne commencé na am ay contact rek nga gis Karim Wade changer instance yi euh, génn ko au début les gens ne comprennent pas bu ñu demee 6 mois 9 euh, mois on se rend compte que euh, moom xamoon na li tax mu génne ko. Mhm. donc aujourd'hui li xew PDS yëpp. ma ne la PDS Karim Wade xam na leen. amuñu sañ-sañu def ña fa nekk di def. Mhm. amuñu sañ-sañu nekk PDS di def te Karim Wade àndu si. Mhm. donc bu ñuy bu ñuy critiquer Saliou Dieng xëy na dañ koy tooñ xëy na li muy def yëpp Karim Wade bénir na ko. waaw loolu nga wax man la Karim Wade nag moom ma nga bitim réew est xam na li xew ci réew mi ku tukki ñu reer sa gannaaw de. mais Karim Wade bu bu bu Saliou bu amul woon ci li Saliou Dieng di def da koy teggi du ci am sentiment de. wax nga dëgg nag yow yaay tubaab. yaa dégg tubaab ak Karim Wade dégg tubaab kon yéen déggante ngeen man nag comme que vernacle laa analphabète <laughs> ah, laa du ma xamee noonu non mais maman yow xam li ngay li may wax nii yaa ko gën a xam ah <laughs> man daal mënumaa accuser Karim xaj na la yow li nga xam ba tax nga wax loolu ndax li nga ma posé fii daa mel ne yow militant nga ci parti bi li wax militant dama war a euh, waxtaane seen parti kay faw ma xam li xew ci biir parti bi mu ngoog nag ah? mu ngoog donc est-ce que du Karim Wade war a waxal moom mi fi moom moom mi dëgëral tànku Saliou Niang lu tax bëggoo wax ak Karim Wade c'est ton frère si les choses ne se passent pas euh, comme il faut il faut lui parler non puisqu'il sait tout il sait tout ce qui se passe dans ce pays il est renseigné de tout ce qui se passe dans ce pays c'est pas la peine de parler avec lui il cautionne ce que fait Saliou Dieng et d'autres personnes n'est-ce pas que ça yow yaa li fi xew xam na ko moo cautionné Saliou effectivement moo questionné Saliou Dieng ndax Saliou Dieng nee nga ñemewu la def loo xam ne Karim Wade àndu ci. mais muy dëgg. ah waaw comme que loolu am na kay lu ma koy wax bu di ma dégg moom kay dina dégg li nga wax dina dégg li ma ko tontu c'est à lui de sujet de juger. waaw mais en cas c'est lui qui cherche à être président de la République. kan Karim Wade waaw te it ñu am yéene nag fas yéene ànd ak moom ci kartanu yàlla ak baaxu yonent bi ba yàlla jox ko réew mi moom mu mu mer ak ñu juboo ak dañ koy topp. kenn mënu ci dara man boog laa wax te ñi ma xamit dañ koy topp ndax Karim Wade Abdoulaye Wade bàyyam lañ koy xoole te yàqaluñu dara nag xañ na ña muy merloo ñuy dem ak di leen génne ñun di wax dëgg yàlla ñu dara man de yàqalu ma dara te bëri ñoo xam ne yàqalu leen dara kon dañ koy topp donc c'est à lui koon comme ni nga ko waxee mu defaraat toogaayam koon gannaaw lu kii def cautionné na ko il est plus renseigné que les renseignements généraux dans ce pays ku am contact ak am na ñu am contact ak Macky ba Karim di leen dàq Mm-hmm. ah bon. waaw. ay góor ak jigéen wala ay jigéen rek. non PDS. Mm. da ngay jékki-jékki euh, c'est mon en tant qu'observatrice ah. dara ump la yow. yaa seytaane. déggal weer rek. may mu ne yow yaa garaaw. c'est mon avis en tant qu'observatrice da ngay jékki-jékki Karim def changement. ah waaw ñu naan wii Karim mu ngi Qatar lu ko neex lay def ci parti bi. fekk na am na lu mu xam. fekk Karim day am lu mu xam. bu ñu teg bu ñu tegee 6 mois. nga xam ne carte carte gi leer carte gi leer bàyyam noonu lay def. dama ne Abdoulaye Wade bu songee nit da ngay maanu. xam na li muy def nii bu demee ba ca biir da nga ne ay lay wan nag Abdoulaye Wade nekk ci dëgg. moo tax nag kon lool la hérité. en fait loolu dama ko utiliser pour pour se dire que. ah mbaa man kon daf maa calculer ci ñi ñi gisee ak Macky. déedéet non peut-être pas mais mais mais mais Karim xam nga Karim c'est un progressiste euh, un fonceur il déboulonne il il avance. peut-être que il cautionne. le, le renouvellement des instances. Peut-être qu'ils cautionnent le fait de, de faire monter des, des, des, jeunes qui ont des ambitions, qui ont aspirations, parce qu'il euh, y a un compagnon... Euh, Bayam Peut-être qu'il a besoin... Euh, non, il a besoin d'une nouvelle génération et qu'il y a des jeunes qui frappent à la porte et qui ont des ambitions aussi. Peut-être qu'il faut... Peut-être qu'il faut... Euh, il faut une des compétitions qui est le parti. Fait une lol montant. Mou cautionner procédure, oui. kon daal bàyyam la ñu àndaloon des compagnons des des amis de Ablaye Wade nous ne sommes pas nous ne nous ne sommes même pas ses amis nous sommes ses compagnons kon compagnons yi Ablaye Wade bu demee ñu danoo war a dem moom it mu ànd ak jeunes yi comme ni nga ko waxee rajeunir parti bi. non pas mu ànd mais mais parti dañ ko war a renouveler parti dafa war a yëngu parti dafa war a am compétition. je ne dis pas le contraire dama ne même le parti au pouvoir de Macky Sall déggoo fi renouvellement ñoom dañ ne si wuti ko. élection présidentielle dama leen dama la jox exemple ne la entre les deux tours ca kër Cheikh Béthio man de billaahi wallaahi tallaahi barke sëñ Fall ku ma ne woon dimanche duñ ne wiiw président Wade ma weddi ko parti dafay am foo xam ne bu fa tolloo dañuy wut ay nit dolli leen pour gën a dëgëral suñ taxawaay waaye renouvellement laa ne sama gis-gis baaxul ci parti gisoo fi benn parti bu renouvelé. da bokk ci ñi naan. Euh, ñuy accuser Saliou Dia de mettre ses ses ses ses ses ses hommes et d'évincer certains membres vrais membres du. xam nga yow yaa ne ñun les amis de Ablaye Wade Karim dafa bëgg rajeunir parti bi. non waxuma loolu de man ay supposition rek laay. ah supposition yi li nga wax laa répété rek. waaw man je n'ai fait que. non non non def affaire. ah non non non bul ma jaay affaire man man dama lay jox ay supposition mais man c'est ton avis qui m'intéresse. waaw. dama ne. dama bëgg nga nga dëggal ma mbaa nga infirmer. déedéet taxawal ma wax la. Ah. da ne ñun nous étions les amis de Ablaye Wade man la du nu ay ameem ay compagnons lañu. léegi nag Karim dafa xalaat ne war na rajeunir parti bi ci sa biir analyse nga ne lu mu def lu Saliou Dieng def Karim cautionné na ko ndax bu ko neexul neexuloon du am man la kon kay Saliou lu ko waaye wax tooñ ko. nga ne man lu ngeen di def ba wax ak Karim nga ne ma tuyee devant l'écran la télévision devant l'écran waxal mu dégg loolu nga ma wax. Mhm. man la kon kañ Saliou na baal ñëpp àq kon lu ko waaye wax tooñ ko il a un chef il comme ni nga ko waxee il exécute les chefs les ordres de son chef c'est normal. comme man Ablaye Wade tey bu ma ne woon tëppeelul léegi sa étage bi damay cëppeelu parce que loolu laa gëm donc euh, vraiment kon nit ñi war nañoo balu saa yu àq ko wax dara tooñ ko. léegi xam nga PDS seen moomeel la seen patrimoine la. Mm-hmm. situation bu ci mënta am est-ce que du seen devoir yéen mag ñi yéen ñi xam parti bi ni muy ni mu démbam euh, barki démbam ak tayam euh, ngeen interpeller Karim Wade waxtaan ak moom euh, ngir trouver solution parce que on à deux mois de l'élection présidentielle on est waaw on xam nga deux mois de l'élection présidentielle xam nga li ñuy xam-xam ne on est à deux mois ou moins de deux mois des élections Karim mii sunu candidat moo nu ko gën a xam te gannaaw li fi xew liy tasaare li tax nit ñi mer cautionné na ko kon koy wax loo koy wax nit kañ boo tànkam day metti nga fajal ko tànk waaye bu fekkee bopp bi day metti ngay faj tànk du wër di. waaye xam nga PDS dafa am syndrome bu leen gerte depuis. Euh, deux deux mil dix 2017 2000 2018 yooyu euh, c'est-à-dire Karim il est loin. loolu mm-hmm. oh, de dëgg la ci tooñ ko nag. Karim dafa dafa sori. ëpp ko doole cest à mu ngi administrer partem mu ngi teg ay nit waaye tamit est-ce que parfois amul réalité yoo xam ne euh, daf koy échapper. waaw mën naa ne sa analyse boobu de xaw naa pertinente. est-ce que amul réalité yoo xam ne yoo xam ne du xam li xew. daf koy échapper dëgg la du xam li xew c'est possible. parce que problème yi gën naa bari depuis le départ de Omar Sarr. Mm-hmm. Euh, ce matin je discutais avec quelqu'un mu ne ma est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que déggati nga comité directeur PDS. Mhm. ci laa fàttaliku ne euh, comité directeur PDS bareesul lu ma ko lu ma ko lu ma ko. waaw parce que Ablaye Wade moo ko war a woote wa ilaa Karim Wade moo ko war a woote Ablaye Wade kenn du ko bàyyi muy woote comité directeur te Karim nekku fi comme ni nga ko waxee mais teewul nag nit ñi fa ñu tegoon seen tànk ba léegi ci am amuru PDS fidèle mu ngi fi de surtout les femmes may mun a est-ce que yow le 8 mars li xew ci weden bi gis nga ko. Mhm. te jigéen ju la ëpp euh, euh, parti bu la ëpp jigéen moo la ëpp chance su gagné toute la journée am na ñoo xam ne dañoo fanaan di daw dëkk de Kédougou Saraya fu ne Wélingara fu ne lañ jóge fanaan di daw ba bët set li ñu togg ci ay mbana kenn xamul mu toll te kenn lekkul sa qui veut dire que parti bi mu ngi ci xolu nit ñi. ce qui veut dire que candidat bi ñu tànn muy Karim Wade di suñu rakk di suñu frère di doomi Ablaye Wade moom la ñu mais loolu rek du parti un parti c'est des c'est des instances actives un parti c'est des instances qui se qui se ci qui qui qui qui li ma la wax dégguloo ko. waaw ah. naa la Ablaye Wade moo war a ñëw woote ko. en tant que secrétaire général. mais su Omar Sarr nekkee Karim Wade nekk fi Abdoulaye Wade nekk fi mais dañu daan convoqué euh, dañu daan convoqué comité kon ne xanaa danoo réer bokk. comme que comme que ci ndigalam la ñuy dox ci ndigalam la saali wax ku mel ne moom di dox xëy na moo bëggul boog loolu am xam nga yow bu ñu waxantee dëgg rek dangaa définir wax ji tout ce qui se passe il est informé de tout ce qui se passe dans ce pays tout ce que fait Saliou Dieng ou ce que fait Waré ou bien ce que fait Demba wala yaa wax loolu kon kañ su gisee loo xam ne nii la demee te mu noppi ah, wax dëgg yàlla nag lu ñuy waxati ñun Karim la topp de te duñ ko ba duñ ko ba de bu waree tàng dañuy ànd ak moom tàngal bu waree sedd dañuy seddal bu war waree marché dañuy marché lu ci war dañ koy def parce que PDS suñ patrimoine la dañ ci ñàkk suñu doole ñàkk ci sunu temps ñàkk ci ba su ñu ci bëri seeni doom dañoo dañoo essuyé kon PDS moom suñu patrimoine la lu metti metti duñ ko ba justement seen patrimoine la duñ ko ba euh, am na ku may waxal mu ne ma euh, que Karim Wade vienne ou pas qu'il soit candidat ou ñun nous sommes au PDS parce que PDS moo nekk suñu deret seen patrimoine la waaw. mais seen patrimoine boobu da ci am wàll Karim Wade il a beau être votre candidat euh, il a beau être le patron euh, ëpp leen ci ëpp leen ci wàll donc est-ce que du seen responsabilité yéen aussi ngeen jéem a xool noo leen di organiser woo xam nga nag bu fekkee ba waxtaan ak mbir mi nu mu gàllee su fekkee dañoo organiser wu xam nga danga nga wax lu am solo est-ce que luy réalité du ko échapper xam nga wax nga loolu yow laay déglu nga ne est-ce que amul réalité yoo xam ne daf ko échappé waaw ñun li ñuy moom PDS yépp li ñu mu doon suñu patrimoine yépp du dañu bàyyi suñu cër ñun xañ ko suñuy doom jox ko Karim Karim lañu bëgg Karim mooy suñu candidat fu mu jiitoo dinañu gis fu mu taxaw danañ taxaw ci wetam parce que ñu PDS la ñu am te Karim mooy suñu candidat parti démocratique sénégalais c'est pas la première fois ma koy wax amulu plan A amulu plan B amuñu Z man de kenn jaraluma daw ku dul moom te li ne ci man moo ne ci caam ja moo nekk ca fay ja moo nekk ca jaxumpa ja moo nekk ci ñëpp kuy militant PDS Abdoulaye Wade amul ay militant ay Baye Fall am sunu patrimoine la waaye comme que nekku fi la nga wax c'est très important est-ce que amul ay réalité yu ko yu ko ndax jóge na fi bu yàgg waaye dina ñëw dañuy ñaan yàlla mu ñëw